moom ay jafe-jafe amoon ca phénomène nag ni waaw li ñu seetlu daal mooy bu ñu xoolee daaw ak ren defe naa am na jéego yu mag yu ñu ma lépp sotti na mais am na jéego yu mag a mag yu ñu def defe naa loolu ñëpp confirmé na ko loolu benn pàcc rek le projet bi nag bëgg mu gaaw jeex ci lu gën a gaaw un milliard huit cent la mais ñu ngi ciy liggéey ba mu sotti beneen bi mooy Kaffrine capital régional la suñu bëgg mooy premier trimestre deux mille vingt et un ay jouer dossier xaalis bi mën ko commencé dérouler l'année prochaine euh, li ci li ci neex mooy études yi nga xam ne war nañ ko pour am wala ji pare defar nañ ko ba pare day gën a yomb